salaamaaleykum rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di siyaarawaat bu baax baax di wax ne tey bi ñu leen indilaat ba tey képp koo ko bëgg a seetaan ba mu jeex nga dem suñu seen YouTube ñu abonné foofu ndax foofu la xam-xam bi di egg ndax comme TikTok bi mënul kii. di wax ne tamit ñu rafet njort ci ñun te bàyyi commentaire yu négatif yi amul solo àddina amul solo suñu xam-xam ñoo ko moom duñ ci dugal dara luy lor doomu aadama yi li ñu dugal lépp maîtriser nañ ko xam nañ bu baax a baax tey it luñ jarab la ñun ñi ba liggéey ko pare am yéene nag ju rafet ci doomu adama yi rek moo tax ñu koy dugal waaye du dara ñu ngi gis commentaire yëpp waaye nag nañ xam ne rek eh, ñun ñëpp benn lañ Sénégal moom ñëpp ñoo ah, yam ñëpp benn lañ boo defee sa bopp comme ñëpp rek doo commentaire benn commentaire bu négatif moo tax ñuy jégal ñëpp ñuy wax wax ju ñaaw ñëpp ñu ngi leen jégal di ñaan yàlla defar seen xol comme ni ma koy waxee te xam ne ñun ñëpp benn lañ daal ñu ngi sant bu baax a baax ci topp gi ngeen ñu topp ci tiktok bi tey nag li ñu leen indil mooy ismullahi azam bi nga xamante ne mooy déggoo ak turu nit ki maanaam nit ku nekk am na benn ismullahi azam benn tur yàlla boo xamante ne moo déggoo ak sa tur boo xam ne boo ko jàppee di ko liggéey alaakuli xaal di nga ci gis ay résultat boo ko liggéeyee suur yi nga ko war a liggéey ak lim bi nga ko war a liggéey loolu nag nan la ko nit di xamee ñu xool fii ci feuille bii feuille blanche bii ma tiim vidéo bi ñu fàttaliwaat ci youtube bi lay eggee ñu xool lii mooy xarful hijaay yi maanaam xarfu abajada yi alphabet bu arab moom lañ ko mën a wax moo nekk nii alifun yëpp 28 xaraf yi moo nekk nii ba xooy nun bi lii nii allahu baaxi jamia daim haadi waddut zaki xakim tahir yaqin karim latif muhaymin nuur salaam alim fardu sabuur qaadir rahman shakur tawaab thabit xabir zul jalal wal ikram mannaan waahiro xan yi ay tur yàlla la moom itam yoo xam ne xaraf bu ci nekk am na benn tur yàlla xaraf bu nekk ci xaraf yi muy am na benn tur yàlla te xaraf bu nekk ci xaraf yi moom la ñuy tur doomu aadama tour doomu aadama saa boo ko bëggee bind ci xaraf yi rek nga koy composé xaraf yi nag xaraf bu ci ne am na benn turu yàlla bu mu àndal kon nit ku nekk turam am na benn turu yàlla bu àndal boo xam ne bu ko xamee jàpp ko di ko liggéey dina ci gis ay résultat bu baax a baax ci wàllu wéram ci wàllu wërsëgam ci wàllu ubbeeku yépp loolu la ñuy jàngale tey ñu xool fii lii mooy limu xaraf yi alif 1 ba 2 jin 3 daal 4 ba mu jeex ba royin 1000 léegi nan koy xamee loolu da ngay jël sa tour boo jëlee sa tur nga adat ko lim bi mu la jox maanaam bu la joxee lim bi mu la jox moom ngay moyee par 28 par 28 par 28 ba mu des li mujj su eggee 28 nag dootoo moyeeti maanaam li commencé 28 ba 1 foofu moom dootoo moyeeti mais tur bi fii mi ngi ëpp 28 da ngay moye ba keroog muy mat 28 bu matee 28 wala lu gën a tuuti 28 nga xool chiffre boobu noonu mu des nga xool turu yàlla bi mu nekk. bi mu déggool bi mu bi mu taqalool tur yàlla boobu mooy si tur moom ngay jàpp liggéey ko nan nga koy liggéey dinañ ko wax ci biir vidéo bi par exemple Mouhamad la nga tudd euh, Mouhamad ñu gis ne moom 92 la Mouhamad 92 la léegi 92 yi moom ngay mooyee 28 mu des 64 nga mooyewaat 28. mu des trente six nga mooy waat vingt huit mu des huit léegi huit bii nii dangay ngay compter ana ban moo nekk ci chiffre huit bi allahu un baari deux jaame trois daayim quatre haadi euh, cinq waduut six zaki sept hakim hakim moo nekk ci huit kon ki tudd Muhammad turu xakim bii ismullahi bii di xakim moom lay jël di ko wérdi moom lay jël di ko liggéey bu koy liggéey nag day adat xakim xakim lay xadat carrément turu xakim bi lim doon turu xakim buñ ko xoolee mi ngi doon huit plus vingt plus dix plus quarante soixante-dix-huit xakim 78 la jàpp léegi xakim bii lay jël di ko liggéey 78 gannaaw jullik farata gu nekk mu koy liggéey 78 bu fekkee dafa doon koo xamante ne du faral di julli mu koy liggéey par journée journée bu nekk mu ko ciy liggéey benn yoon waaye nag amut heure fixe bu la neexee maanaam journée bi moom de ko liggéey rek l'essentiel daal ci journée bi na nga koy liggéey moo xam da ngay dox moo xam da ngay toog moo xam da ngay tëdd waaye nga koy liggéey jour yi nga koy liggéey am na euh, sept jours quatorze jours vingt un jours ba quarante jours loola neex nga jël ci mais bi gën nag mooy nga jël quarante jours nga liggéey ko bu matee quarante jours dina gis bu baax a baax ak ubbeeku ci yow bu baax a baax boo ko mënee nga jël ko quarante jours def ko di ko def di ko liggéey li mu quarante jours nga jël yaa xakim bi yow mi nga xamante ne yaay tudd Muhammad nga jël xakim bi su fekkee foofu comprendre dinaa joxwaat beneen tur lu mel ne Mariam nit ki tudd Mariam Mariam bu ñu xoolee turam mi ngi doon quarante plus deux cent plus dix plus quarante mu jàpp deux cent quatre-vingt-dix léegi deux cent quatre-vingt-dix yi da nga koy moyee gis nga par vingt-huit mooy waatal vingt-huit mooy waat vingt-huit encore encore encore encore encore encore encore non non li ma def baaxul de Mariam quarante plus deux cents plus dix plus quarante deux cent quatre-vingt-dix moyen par vingt-huit mhm. ok nii la mi ngi soog normal gis nga Mariama dix lay des dix boo ko mooyee boo defee tur bi di ko mooyee par vingt-huit ba mu agsi 10 lay des léegi 10 moom xam nga kenn mënu ko mooy par 28 parce que 10 moo gën a néew par 28 léegi da ngay xool 10 bii nii ban turu yàlla moo nekk ci numéro 10 bi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaqin moo nekk ci turu moo nekk ci numéro 10 bi maanaam mooy yaa bi yaqin la jàpp kon ki nga xam ne Mariama la tudd turu yàlla bi nga xamante ne moo déggoo ak turam mooy yaqin lay jël yaqin li mu bi yaqin mu xool li mu bi yaqin yaqin mi ngi doon uh, dix plus cent plus dix encore plus cinquante yàqin mi ngi doon cent soixante dix ki nga xamante ne dafa tudd am na jël yàqin bii nii di ko wér de cent soixante dix cent soixante dix gannaaw jullik farata gu nekk mu koy wér de cent soixante dix li mu quarante jours wala limu mu vingt un jours wala li mu 14 jours wala li mu 7 jours lu ko ci neex rek na ko jël mu liggéey ko lii léegi tur bu nekk nag dinaa indi sarax bi bu lépp eggee yi ci des yëpp tur yi nekk noonu lañ koy liggéeyee yi ci des yëpp noonu lañ koy xoolee maanaam dangay ngay xadat sa tur xool fooy bii tur bu nekk alifun allahu mooy tur yàlla am baaun baax yi mooy tur yàlla am jiimun jaami mooy tur yàlla am daalun daa im mooy tur yàlla am haun haadi mooy tur yàlla am waawun waddut mooy tur am ba mu jeex léegi nga xool gis nga chiffres yi nga xamante ne mooy seen lim mi ngi nii moom ngay xool boo ko xoolee ba jàpp boo jëlee sa tur nga xadat ko lim bi mu la jox nga moye ko di ko moye di ko moye par 28 par 28 par 28 ba lim des lim des nga xool tur boobu noonu fi nekk nga jàpp tur boobu noonu di ko calcul ko moom ñaata la tur boobu ñaata mooy limam nga koy liggéey gannaaw jullit farata gu nekk incha allah bu fekkente ne vidéo bi leerut lépp lu ci lënt buñ ko defee ci commentaire yi dinaa ko gën incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.